li am moy té bañ ko jangaté ñun loolu lañ gis au nom du du libre administration des collectivités locales au nom de cette liberté que les municipalités yi ñuy exiger ne ñoom dañoo gérer sen bop té loolu c'est la loi qui le consacre Si nous recruter ay personnel maires yi ñoo am la responsabilité de la gestion de ce personnel là loolu moy dëgg c'est ça le principe bobu en tant que ministre de tutelle principe la boo xam ne bu ñu ko wàccee rek ñu ngi wàcc ci même liñ naan li tax ñu naan décentralisation mooy gox-goxaat yi am autonomie jël seen décision bopp gérer sen bop waaye nak toute responsabilité day ñëw ak yo xam ne ko wara respecter bi ci top moy ci personnel bi liggéey ci mairie bi amna na ñoo xam effectivement c'est des am c'est des fonctionnaires ñooñu buñu ñu indemnité dañ ko wara a laaj te loolu ñun état pare nañ accompagner bépp maire pour mu respecter principe boobu maire bu ci am jafe-jafe fay indemnité boobu ñu naan indemnité de compensation état pare pour accompagner la ci fonds yi pour nga mën a respecter principe boobu mooy fonctionnaire bi dañ ko war jox ay indemnité mais ñi nga xam mairie bi moo leen recruter boppam ñu nekk des contractuels ñooñu amuñu droit di revendiquer indemnité bi ba di ci dem grève bay toog sa kër di percevoir salaire di paralyser système service bi au niveau local te li ngay revendiquer boo doon wut ci ban loi laa ko wekk doo ko gis ci benn loi parce que ñaari benn loi moo am ak benn décret loi bi fonctionnaire yi lay wax décret bële agent non fonctionnaire lay wax wax na ne luy agent non fonctionnaire ba noppi décret boobu boo ko ubbee doo ci fekk indemnité de compensation donc lii mooy vérité bi nga xam ne moo am bi ci nous ñun impact budgétaire li recruter ñuy laaj indemnité Nous buñ ne Nous dañuy appliquer ñom liñu diggé liñu Nous ak nga leen 61 milliards ñaari at année rek c'est 21 milliards loolu nit ñi dégg nañ mais comme revalorisation bi mi am deux ans ci

ba noppi dinañ trouver solution ak maire yi nga xamné ne ñoo ñoo concerné ñi nga xamné nak nag nekkuñu ay fonctionnaires ñu ngi leen wax nañu regagner sen poste de travail té ñi ngi wax maire itam ñom ñoo leen recruter signer leen des contrats na maire yi veiller à ce que ñu respecter li ne ci contrat bi parce que contrat de service public le Sénégalais yi dañoo soxla ku leen defal service nit du signer contrat ci mairie war a xëy liggéey si parce que embarqué nañ ko mouvement bo xamné muy laaj loi bi mu salaire ci ligéyul que nous ngi demander maire yi faire respecter li ci contrat yi dinañ et je vais donner des directives claires au niveau des gouverneurs pour ñu veiller ci véritablement je demande aux travailleurs de retourner vers ci ligéy nit mom am grève mais loy grève ko loi et sur ce point, l'État ne va pas véritablement transiger sur, cette question-là. Donc, d'une Doyna Boromi Khel.